Bienvenue sur Salam Vision. mbokk yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp yéen a déglu de Salam Vision tey kaddu askan bi indi tey sujet bu am solo sujet bu mucc ayib euh, ko si inauguration maison de la la citoyenneté bi amoon fële ci Pikine tey ñu dalal Ousseynou di acteur développement di homme politique Ousseynou Ndiaye salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. population Pikine. o nuyu ñëpp di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant. Mhm. waaw. tey kaddu askan bi mu seen tey nañu sujet bu am solo lan lay faral keroog bu ñu inauguré le maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Pikine. waaw di di ko du ma ko rafetlu dama koy naqarlu. li tax ma koy naqarlu dama am ci ay causes yu ma ko teg. Mhm. mooy euh, bis boobu dafa am lu ma ci naqari trop muy dafa jege armée yi trop. Mhm. ci biir armée lañu ñuy am ku ñuy denc ci biir denc moom ñu koy denc bi ñuy essayé seen sonorisation yi rek exemple la ñun fi ñu toog di denc biir yi ak ci son yoo xam ni mbiru àdduna la ci biir fi ñu nekk lañu fekk kon loolu rafet ma ko rafetlu ma ko ndax tamit yeneen nañ koy waaj xewaat yoo xam ni bu paree son yi bu jugaatee fa la mm-hmm. kon nekkul daal lu ma rafetlu. Mm-hmm. waaw ça va. Ousseyn beneen question ma lay posé xam nga coow li bari na biir Pikine. waaw ko si maison de la justice boobu maison de la citoyenne boobu maison de la jeunesse boobu diggante euh, mairie Pikine Nord ak bu Pikine euh, ak bu Pikine Est bu Amadou non bu Pikine Nord. Pikine ak Pikine Ouest ah. bu. Euh, Pape Ndong góor gi Ndong góor gi Ndong. waaw coow li ñu ngi coow eh, yow da nga mën a expliqué loolu tey jëmale ko si ma ciy wax mooy euh, góor gi a ak Amadou Diarra. waaw bu Pikine Nord. danoo yàpp population bi. Mhm. yàpp population bi mënul weesu. Mhm. ñuy def ay communes. communes yooyu ñuy def mënul mënuñu ko tënk ci lu dul politique. Mhm. politique la. ndax parce que maison de la maison de la jeunesse foofu ñu ko moo dox diggante ñu jox ñu jox ñu suñuy suuf ñu yokk suñuy armée ñoom ñu nekk ay autorité ñoom ñu nekk fi nekkal fi état donto bu kee nekkee opposition kii nekk pouvoir sax ñun ñoom ñun lañ fi nekkal population Pikine Nord population Pikine sax laay wax ñoo génn di laaj suñu suuf yokk suñuy armée bis boobu su may woon kenn tëddul maanaam nit ñëpp su may woon huit heures la ñu jóg muy leader politique yi ñëpp jóg gis naa ci ay leader yoo xam ni danoo jël politique teg ko fële. Mm-hmm. ñëw taxaw pour ñu jox ñu suñuy suuf ñu yox suñuy armée. Mm-hmm. gisuñu ci benn maire génn génn ñu wax génn ñu def dara léegi yàlla def ñu def loolu ci jàmm taxaw defe ni dinañu jox ñu moom. Mm-hmm. ba tey li ñuy wax yow nii ñuy waxee joxuñu ñu moom. ñoom li ñu gën a naqari di tax ñu luñ pose première pierre boobu amuñu ñun ñu neex mais ñoom ay autorité la pourquoi war mu mën a génn appuyer ñu ñu jox ñu suñuy suuf ñu yokk suñuy armée jaraat ku ñu yab la le maire ku ñu yab la góor gi doom daf ñoo yab timboo daf ñoo yab ndax parce que ñoom yab ñu mënul weesu ñu sumb dara ñu war ñu appuyer dox ci bañ jox ñu ko léegi xeex am Ousmane Sonko jàppal bàyyi ñu ñu ngi profité di politique. Mhm. pour temporiser. dëgg la askan bi temporiser euh, population mhm. population mhm. loolu taxul ñu dal. lu mu jot waaye jox nit la dina ko lekk. population ndax dañoo sonn. waaye population bi xam na li ñu war a def suba. nañ ñu jox suñu suuf ñu yokk suñuy armée armée boo ci duggee jooy. boo ci duggee jooy ñu jëlaat maison jël nañ arène taf ñu jëlaat maison des jeunes bu ko ci tafaat ay nit tëdd fa suñuy yaay tëdd fa suñuy doom tëdd fa mm-hmm. suñuy mag tëdd fa suñuy rakk tëdd fa mm-hmm. ñu ñuy fooye ñii seen bopp rek la ñor maire yi les deux maires suñu seen bopp rek la ñor waaye rek ñun ñoo leen fa teg ñun ñoo ñu toog la waaye askan wi dox ñu xam na li ñuy def nanu bàyyi yii ñu ñuy defloo ay solal nit manifestation yi ñuy leen yóbbu di leen jox ay voile di leen yóbbu arène ba di fay ay nit di leen di leen defloo loo xam ni du dëgg du yoon waaye dinañ ko gérer dinañ xeex ak ñoom te di xeex bi du jeex te dinañ lii lancement la te incha allahu rabbi bu ci yàlla àndee dinañ woo si dina woo presse mhm. dina dinañ woo Walf dinañ woo TFM dinañ woo télé yëpp dina leen woo. Mhm. dinañ ko defee incha allah bu ci yàlla àndee. combat day continuer. day continuer dina ko yóbbu ba rond point di lieu bi nga xam ni fa la tegee pose première pierre. Mhm. ñu joxañ ko xamal ni li ñu def yokkoon suñuy année moo ñu ko gën a. waaw doy saa. Ousseynou Ndiaye balaa ma lay bàyyi xam nga li jëm si mbirum armée yooyu maison de la jeunesse boobu. Euh, cooraay bi gën di euh, takkar na si biir banlieue bi benn question lay posé naan kaddu askan yow ndaw la jeune la te moo gisee tey euh, woote bi président woote bëgg taxaw ndaw yi sur le chômage et l'emploi des jeunes sénégalais li ma ci gis du ñu ko joxee lu ñu war la lu war la bu ñu ko joxul lu war la li mu ci def lépp dinañ wax c'est bien mm. waaye rek bien bi politique nañ ko bu ñu ko ci laxas ndax lu population lu askanu Sénégal moom la. lii war woon xaar war nekk loo xam ni léegi lay doon bu yàgg la woon. problème mu Sonko moo indi lii yëpp. moo indi lii yëpp pour retaper pour damu. mer gi population bi mer population bi war nañ ko gannaaw ba pare. waaye ñu wan ko gannaaw ak ñu ko kanam dafa war a def li mu war a def. ndax fii mu toog. ñii muy waxal ko jox. Mhm. kon nañu fexe jox askan wi lu moom. quatre cent cinq milliards. quatre du ay caaxaan. Mhm. te ñu bañ ko jox rek seen i ñu bañ ko jox ku far si ñoom. Mhm. gis na li boo xasee ba jiite dara. ku nangu yow la ku bañ yow la kon ki nangu ku bañ yemale leen. nga yemale leen looy jox ko jox ko tasaare ko jox ko ñëpp. mu nekk loo xam ni. bonne voie ci bonne voie lay doxee. Hmm. ñun ñun ay la lañ waaye ak ñoo xam dëkk bi ak a xam ne lu waay teg xam nañ ko lu waay du nar xam na ko. naxaati bi jaaw maam adversaire politique rek yi nekk ci commune yi. waaw du ma ŋàññi kenn. Hmm. waaye tamit ñoom tamit dañuy ñëw di appuyer ci combat yi ndax ñoom tamit lu waay lu leen waay wax tooñu leen. Hmm. ñoom xëy na ñu ngi jël seen i moyens de bopp di ci doxal seen doxalu bopp. di ci doxal loo xam ne tamit ñu ngi leen ci wax jërëjëf. waaye ñi nga xam ne nag ñoo ko moom. ñoo ko moom mu nekk ay budget yoo xam ne ñu ngi leen ñu koy dugal ci biir communes yi. nan ko fexee ñu defal ko maanaam ni ko population bi bëggee. waaw ndax parce que politique bi daal neexul ba neexul. Ah lu ñëw ñu politiser ko lu ñëw ñu jël ko la ndax ci politique. waaw yàggul dara def na fi sensibilisation ci ay masques. la maire bi ñëw am loo xam ne mu yónnee ko ci buñ bu fa yónnee woon milliard lu mu war moom moo ko waroon def. man moom laa jàppale moom jàppale wu ma la jàppale. ndax loo xam ne ci moom moom mm-hmm. ndax moom bu budget ñëwee ci moom la jëm. Mm-hmm. loolu benn ñaar ñett tëdd damaa feebar kii wala nga ñëw di créé loo xam ni ñun tëdd tëdd ñun ñëpp a feebar. Mm-hmm. fii kenn wéru waaye bu ñu pour nga dem sa maire yi sax fekk leen fa c'est difficile. boobu la bokkul benn maire laa ci gis. Hmm. muy man defaluma dara. muy le maire Issa Diop. mu ngi maa gis mu ngi recevoir ay nitam di xool dëkk bi population bi manqué jàppal bàyyi man mi mi mitewu ma Pikine Est Pikine Nord laa dëkk. kon lu may def lu fu muy gën a safee mooy Pikine Nord. man Pikine Nord laa dëkk. Hmm. taxawal nañ group boo xam ni groupe whatsapp bu yaatu defe naa group bu riche la. Hmm. bi rek dañ ko day doog a door benn instant dama nit ñi bari du ma jox seen numéro yoo xam ni. Hmm. dama leen canaliser. Hmm. pour canaliser mbooloo. maanaam bàyyi ba lépp jóg yëngu. nga ma loolu la mën canaliser. moo tax bi groupe bi man ñu ne leen leen teg. kenn duggul kenn waxul. waaye dara taxu ñoo jóg lu dul piqué. en tout ka li ma la mën a wax le doyen. Hmm. mooy les deux maires. waaw muy Amadou Dia muy maire. Gorbidor danoo yàpp population Pikine hmm. ndax ñoom li xeex nii ñuy xeex nii ñoom ñoo ci waroon jiitu. Hmm. pour ñu jox ñu suñu suuf ñu yokk suñuy armée ñu ñuy jéem a bëlëfe di ñu indil ay maison des jeunes. maison des jeunes c'est lu baax la. waaye am na lu ko jiitu farata. farata mooy. chaque jour nga gis ñu jël néew gas ne gas. fekk fa nit jëlaat nit teg ko ci kaw nit. mais loolu c' est grave. c' est très grave da nga wax da nga wax dëgg. Hmm. beneen question bu leen ñuy posé wu seen jëmale ko si kaddu askan bi yow ndaw nga gis nañ tey léegi seen mandat jeex na def nañ fi juróom-ñaari at euh, Sénégal yi ba tey gisuñu seen bopp ba si biir banlieue bi gisuñu seen bopp si liggéeyu mairie yi. waaw euh, loolu yëpp maanaam ci defe naa ci état boo xam ni liggéeyul normal ndax parce que. mu avant mbas mi sax seen mandat jeex ah. kon bu ko tëgg ci mbas mi ci feebar bu ñëw la yàlla indi na ko fi waaye avant loolu élection waroon na fee taxaw yooyu yëpp am na ñu naroon ay dëgg sërëx yi pour mën cee jaar pour pour reporter ay waaye yàlla lu mu am lépp loo xam ne rek yàlla def ko ko mu réussir ak suñu borom la gis nga toog naa benn maire ci ci ci maanaam ci fii ci commune ci département Pikine mhm. ma ne ko lii nii di xew nii yàlla am na lu mu am na maire yoo xam ni yàlla namm na ñu jëkkati leen fa nekk mhm. li tax mu bàyyi ba xeex bi ñëw ñu doo wax waxu ay élection ça veut dire am na ñoo xam ni parti au pouvoir moom population bi da leen mere mhm. te population bi lu leen indiwaat yombul de ay milliards bu am woon tamit njëkk a jàpp liñ jàpp te am na ñoo xam ne dañuy jóg dans un cas dinañ jóg fi seen bi waaye ña fay ñëw tamit yàlla nekk ñu gën ci askan wi. Hmm. waaw kooku ko demee nit ñi na ba pare. Hmm. li mu toogoon doon ñu ko toogaat. Hmm. ak defe naa dem ni février deux mille vingt deux. je pense man jàpp naa ni bu baax a baax bu génn ci février de mille vingt ñu def élection. ñi ñi ñi ñi fi nekk nekk fi te buñ fi nekkee xaaj ak seen bañ am. liggéey liggéey bi war waaw. te ñi nga xam ne tamit ñoo fi nekkoon bu fekkee dañ fay nekkaat ñu changé doxalin te xam ne doxalin bi dara jaar ci yoon. Mm-hmm. muy le maire Amadou Diarra. Mm-hmm. muy maire góor gi dong. Ah. rond point boobu ñuy xëccoo rek. bari na lu ci laxasu doole. Mm-hmm. waaw tey kooku mooy Ousseynou Ndiaye xanaa balaa ñu tàggatoo Ousseynou le dernier mot à tous les jeunes de la banlieue et du Sénégal. waaw dernier mot bi rek mooy euh, ñun bari na. bari ndax tamit ñu seet l'essentiel leader yi tàggat seen nit na leen dem leen xeex ci mu nekk loo xam ne boo ci sax xam ni ya ngi doon xeexal jixaat ci yoonu yàlla ndax am na loo xam ne boo koy xeexal lu mel ni armée yi lu mel ni l'essentiel yu ëpp solo ci commune bi ñu koy dem di ko xeex wala ci biir Pikine ah am na solo loolu moo tax benn instant leader même leader man waxatuma maire yi leader yi nekk ci biir commune bi tey ku mel ni tey Lamine ku mel ni ñeneen ñeneen ñu ko ci commune bi. maam mm-hmm. ñi ngi xeexal ñi ngi xeex ku ci ku ne ku ci nekk yàlla la yàlla defal li gën ci yow ay ñoom bari na. Mm-hmm. yaa ngi dégg bari na ñoo xam ni ci biir commune bi ñoom war nañu mën a nekk ay nit ñoo xam ni war nañu mën a tàggat nit ñu xeex ci lu mel ni armée yi. Mm-hmm. ñu mel ni tàggat ñu xam ni lii ku ko xeex jixaar la ci yoonu. suñu yoonu yàlla. yokk su ne ku nekk moom moo ñooñu mooy tudd noonu ci biir armée kon war na jéem mën a xar seen tànk war na jéem mën a xeex ba tëdd suuf muy parti réew mi ñeneen ak ñeneen waaye Sonko ñeneen ak ñeneen ñëpp war na man am na ñoo xam ne tey démb ci mujj ñu ngi wax man ci loo xam ni du ma waxagum. waaw waaye li ma la mën a wax mooy appel bi may lancé population bi muy ndaw yi nañu fexe. Mhm. ñu xeex li jar a xeex. Mhm. lu ne daa am moment. lu ne daa am période. Mhm. waaye période bu xeex pour pour ko ñu yokk suñ ñu jox ñu suñu suuf ñu yokk suñu ku mel ni Adjuma Diallo mu ngi xeex ak équipe am ñun ñëpp nañ def benn tànk le c'est le moment jot na waaw loolu daal laa amoon loo xam ne maa ko ciy wax ñu taxaw ci ñu jox ñu suñu suuf ñu yokk suñuy armée ndax lu jot jot na gannaaw de kooku mu doon euh, Ousseynou Ndiaye di ko gërëm ko sant di acte développement di jiite action euh, pour la citoyenneté n'est-ce pas. oui nan noonu. mouvement action citoyenne. mouvement action citoyenne fii ci Pikine euh, euh, commune commune de Pikine Nord docteur bu mag nekk un travail infatigable moo doon seen tey kàddu askan bi ñu doon dalal tey Ousseynou Ndiaye gën ko sant mbokk yi jàmm